Euh, la salle d'études, on commence par la salle d'études qui est là. Hein. Ça, c'est la salle d'études qui fait 1000. Celui-là, c'est celui de Majalis qui fait 4800 mètres carrés. Voilà, 4800. Et donc, euh, au niveau de Majalis, on en a deux salles d'études pareilles, euh, deux bâtiments, plus le restaurant qui est là. Plus le restaurant de 400 mètres carrés, donc 400 places. Et tous ces bâtiments, aujourd'hui, ils ont fait juste neuf mois. L'amphithéâtre de places est là. Et cet amphithéâtre nous, permet d'avoir places, hein, qu'on n'avait jamais eue à Touba. Justement. Et là, aujourd'hui, c'est un bâtiment qui fait 16 mois et aujourd'hui, le gros œuvre est à 75%. Il est doté aussi d'une charpente métallique de 3600 mètres carrés, mais fabrication locale, sur place. Chaque ferme nous fait 3 tonnes et quelques. Et on tout le logistique pour les soulever du sol et le mettre Et là aussi, euh, euh, voilà, on continue au niveau de l'administration. Ça, c'est le bâtiment du rectorat. Et donc, toute l'administration de l'université est à ce niveau. L'université qui fait 23 euh, hectares, 23 donc toute l'administration se fait à ce niveau-là, les services pédagogiques et tout. Et ce bâtiment est interconnecté avec tous les autres bâtiments, à savoir l'amphithéâtre, à savoir les salles d'études. Et après on a aussi la bibliothèque qui est toujours dans la zone administration, cette bibliothèque. C'est une bibliothèque qui fait euh, 2400 mètres carrés par niveau. Pour 4 niveaux, ça fait 12 620 mètres carrés au total, cette bibliothèque. Avec un sous-sol. Là aussi, il y a une, euh, idée, parce que dans toute l'université, c'est le seul bâtiment qui est doté d'un sous-sol. Et le sous-sol, c'est grâce au DG de Touba Matériaux hein, pour qu'on le fasse. Hein, ce sous-sol. C'est un sous-sol aussi qui prend, comme je disais, la fondation, euh, 1400 mètres cubes de béton. D'où raison pour laquelle le DG avait installé la, la, pompe à béton. Donc ça fait 530 tonnes de ciment et 140 euh, tonnes de, de, de fer. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, actuellement, nous avons fait le sous-sol, euh, le rez-de-chaussée. Parce que c'est le dernier bâtiment que nous avons commencé. Le bâtiment où il est aujourd'hui actuellement, on va le livrer dans un mois. Normalement, c'était dans 15 jours, mais il y a eu des rajouts, donc on le livre dans un mois. Les deux bâtiments pareils. Et à partir de, ce, de cela maintenant, chaque mois, on livre un bâtiment. Et nous remercions notre, notre Abdullah Hadka, qui est l'opérateur économique. l'amphithéâtre de 1500 places dans la zone UFR sciences islamiques et langue arabe. là, euh, c'est le Majalis. Le Majalis qui est là le grand bâtiment de 4800 Majalis, plus un second bâtiment, plus le restaurant qui est là-bas. Et de l'autre côté maintenant, l'administration qu'on va voir à, l'entrée. on vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, merci, merci beaucoup. Merci. Mais tous les nos remerciements, c'est à notre patron. Aujourd'hui, aujourd'hui non seulement il est notre patron mais qul haqq walaw kaana murran il faut dire la vérité nous sommes payés chaque quinze jours le personnel est payé chaque quinze jours ñun euh, euh, du ñu amuñu solo bu baax mais yàlla baaxe nañu mm-hmm. ci kattanam mm-hmm. euh, ñu ah, sëriñ bi wóolu لسنا شيئا مذكورا مجرد اتباع li ñu rafete li njort rek mooy mu sumbal lu toll nii is ci ci àddina ci taarix gisaguma benn nit individuel bu xëy tëdd initié ne damay def lu toll nii te defal ko infrastructure islamique bu toll nii defal ko diine. loolu man def naa quatre continents yi gisaguma ko dox naa nag quand même dox naa gisaguma ko yajalna nuqsinu zan bi bi hada al amal al mubarak an ash-shaykh yani fi laylatin wahida fakkara fi an yuqima mithla hada al amal li wajhi llahi taala an takuna tuuba منارة للعلم والثقافة قال بأن هذا أنا سافرت كثيرا سافرت إلى أكثر من أربعة حارات لكن لم أرى وعزيمة مثل هذه العزيمة وحزم مثل هذا الحزم من قبل هذا الشيخ mu mu bi ma ko xalaatee lu to yéene bu toll nii ba pare yàlla dimbale ko mu di ko exécuté mu di ko jëf يعني هذه النية التي كانت مجرد فكرة في رأسي لكنه أعطاه يعني جسدا وبدأ ينفذها ويشارك يعني هؤلاء في العمل donte ci la nekkoon mu ne day def daare alquran di mooy njëkk dañuy jàngale alquranul karim bu ñu noppee jàng xam-xam كانوا من قبل يدرسون القرآن الكريم أولا بعد حفظ القرآن يتفرقون لطلب العلم suñ noppee mu formé leen ba ñu am métier ومن هناك أيضا يدخلون في مدارس تكوينية لكي يكونوا للمهن اليدوية donc loolu nag defe naa ne moom la mooy l'islam فهذا هو الإسلام loolu defe naa moo taxoon sallallahu alayhi wa sallam gàddaay gàddaay Makkatul Mukarram dem Madinatul Munawwara sabab hijrati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam min Makka ila al ngir wane l'islam ngir giide nit ñi ci sun borom tabaaraka wa taala ci diine islamiya kon nag moom def naa ne def na ci rôle bu rëy idan hada yadullu dalala wadiha ala anna cheikh Mouhamadou Mountakha ada wajiba man foofu rek laa sant yàlla sunu borom tabaaraka wa taala binaan ala hada ana ahmadu ra daima bi mu xalaatee bi mu xalaatee mu ne ma naa la ci dénk nga jàpp nga liggéey ci lama fakkara fi shaxsi daif wa kallafani alqiyam bi te te te gëm naa ne ku yàlla nangul la parce que ku yàlla nangulul doo am xalaat bi mutlaqan fi an duaahu mustajab li annahu cheikhun saalihun wa naqi loolu loolu laa sant yàlla sëriñ bi nag la dénk Ahmadou Badi li dalika bi ala hada askurullah rakkama lakin hada cheikh Ahmed Badawi Mohamed Fadel hmm. axu axul xalifa asahir hmm. huwa alladi kullifa taban bil ishraf ala hada al mashar mais waaye nag ci ci ci ay jikkoom ci ak doxinam ci ci la loolu la ko la ko doylooy ba seppi ko dénk ko lii lam yaati min fara jaa ngi koy ñaan rek ñu ñaanal ko ci daraja yonent bi sëriñ bi yàlla may ko fan wu gudd di xalifatul al umr parce que am na dundam am na njëriñ ci lislaam am na njëriñ ci jullit yi am na njëriñ ci diine bi أثاري ملاسي أرجو برحمتي على أولاد يدر أن منك يا الله مليك يميني وقلبي بزول يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سريا يا قدوس متليا عني وعن كرادي تدار يا الله